di leen baalu àq. ñu xam naa su ngeen ma gisee fii may wax dina jaaxal ñu bari dama bëgg yéen waa Thiès bu leen nax Macky Sall ngeen baal ma nag barke démb def naa benn émission nee naa man ku ma ci Macky Sall ma wuyu bu ñu nax Macky Sall. munu leen na ne yéen a bokk ndey ak baay ba pare te bëggantewu leen mun ta nekk c'est pas possible kees xam nga luy musibaam ñàkk juboo moo tax Macky du fi am résultat kenn bëggul kenn man li ma gëm mooy kuy dem ci terrain bi di liggéey comme ni Babacar Pascal mii di def def ni ko yeneen mouvement yi di defee ak Siré Dia mouvement yi nee naa ñoom ñëpp nañ nekk benn ñu àndi jàppale Macky Sall Macky Sall na nga fexé mouvement nga jox len doole nga nomé len xam nga yalla def na nit ku bax mo ngi dëkk bi recevoir na ñëpp muy pap Siré ja lu mu def Thiès fi jafé na ku ko fi def ci responsable man dëgg mo man neex yalla def na recevoir na docteur pap Amadou Ndiaye ñu tok waxtaan recevoir na enseigne ñu waxtaan ku bëgg defar da ngay yaatal. Babacar Pascal Ndiol mi limi def dana mën fal président yenen mouvement yi liñuy def mun na fal président man newoon na man may avocat mouvement yi di avocat président de la république buñu ñu nax nit ñi dëkk bi dafa am ñu ko yàqoon mais yalla def na dëkk bi léegi tegu na ci yoon nañu jubo président jàppaleel wa dëkk bi jàppaleel mouvement yi nga fal leen mo gën ndax da nga élection yi ñi soxla président doo nga soxla kenn soxlu lu dul président benn carte la te président doo nga ko soxla ñoom ñoo ngi ànd toujours di ñu xarab nañu fexe góorgóorlu ñu nekk benn kenn bañ amu fi benn leader benn leader moo fi am muy président de la république su ngeen toogee fii nag di wax dina jaaxal ñu bari ndax man man man li ma gëm mooy président laa gëm newoon naa man aw ma leader lu dul président président donc la gëm man ku woote su ma ci président dinaa la wuyu man loolu laa gëm dama gëm lii laa gëm liggéey ndax jaxaw gi samay mbokk doo nga fi nekk sama baaya fi nekk muy Thierno Alsane Diallo bu jaxaw sama papa sama xarit la sama sœur a ngi fii dëkk ñu koy wax Faati Banel moo ngi dëkk fii mooy yaay ñoom Ayda Kat sama sœur la waa kër Ami Balla Taala ngi sama xarit lañu Abim ñaa ngi fii sama xarit benn bakkal la mais lii laa gëm leader dangay daw ci terrain bi moo gën ñu bàyyi xuloo yi ak xeex yi. fii li ko waral bari na. ndax kilifa gi tok muy babakar Pascal nee ko ku ñew ci yow def escale mu doon jëm jo xamni man da duma waxal nit lu ma defal xawna ko mer mere tuuti nak, ndax duma neub sama deug góor gi taxaw fi legi dafa wax ay deug yu ko mere babakar Pascal lu ndaw la moy mere naa ko sax merew ko ndax woo naa ko téléphone mu jël ma te mënoon na maa bañ a jël benn loolu rafet na déedéet ñaareel ba mooy damaa ñëw ba foofa ñaari yoon toog ba sonn mun maa fexe ba ci Babacar parce que man artiste bu day ni man dafa loolu moo tax ma ne laay Babacar dama koy pas Babacar Pascal dama koy kar jaxaaw comme xat na fii naa bàyyi ba mu ñëw jaxaaw dinaa ko jàpp ndax fekk naa ko fa mu dëkk ñëw këram mu teral ma yëg ma loolu génn mook famille ak ay soxnaan taxaw nii ma wax mu yëkkati alal yu bari jox ma ko ma fekk ko dëkkam moom Babacar mii moo tax damaa def loo xam ne xam nga da ngeen doon déglu léegi du njaay mbeng mu neex lool waaye te ay ngeen xam ne am lu ko gën a neex lool waaw ndax jëmm ji toog jaral na ma ko Alioune Aïdara mii ndax bu dul dara nit ku baax la man dama waron dem dakar mais dama ni bala ma dem fokk ma ñew fatte won nako bureau babakar mi la ron dem fa la ka yegge ni tay la affaire bi mo tax ma deppat ñew te di nga xamni jar nga ko ndax limo musul def fenn muy morso bo xam dama ko gendel Macky Sall kenn deggu ko tay sa fi ma taxaw ni la koy ñëk def ngir sa jëm ji ma bëgg nak comme politiciens yi ñom babakar ak ñom pap sirajak ak keneen ku mën a doon li nga wax sànq père dafa am solo bu ñëpp juboo rek affaire yi baax ma bëgg nag ñoom noonu ñu bëggee nit ñu jàppale leen nañ jàppale nit ñu ñoon man sama genre gii danoo jar a jàppale ndax xam naa ni lépp lu may def ci fulla ak fayda laa koy defee ak gëm sama bopp ku jàpp ma def ku jàppul ma def du ma xaar kenn nag waaye bu ñoom dañ leen a war di seeti ñu jàpp suñuy mbir looloo tax président nag ñoom président leen ñor ñun gisuñu président xamuñu président ñoom lañ gis ñoom lañ xam kon nag fexe leen ba ñun artistes yi mbër yi joueur yi ni ñuy toog ak président wala ñu toog ak soxla président gis leen suñuy soxla ñoom ñu jàpp ci mbir ni dafa xaw a ndax studio morceau bi ma waaj def du jaru sax may taxaw fi naan lii laa ci def du ma ko def Lama ma def xam naa ko tati dem naa seeti nit muy aaliñaa xale bu dëkk dixième mu jàpp ci moom bu baax boobu gisuma la waaye comme gis naa la yo après euh, qui les donne rek euh, comme complément d'objet direct. ayca DJ léegi nag damaa bëgg ngeen déglu bu baax morceau bi sant di leen ñaanal Ahmed Aidara mii ñu fekk si Alioune Aidara lii mu def tey jii rëy na lool ci ñun ndax ñun lii ñu indi tey jii Babacar Pascal mi nga xam ne mooy sunu président muy dollil yi ci moom lañ topp ci ginnaawam macha allah boobu ba léegi ñi ngi ci di ko ñaanal lii mu jublu yàlla na jëm ca kanama ca kanama kanam rek ndax macha allah boobu ba léegi Macky rek la bëgg moom lay jàppale te moom rek la <coughs> soxal <laughs> ñuy ñaan nag li nga xam ne moom la ñu jublu yàlla nañ ci yàlla jàppale di ñaan euh, mouvement bi ca kanam sa kanam rek ndax macha allah boobu ba léegi ñu ngi ci tàyyi wu ñu sonn ñu topp ci ginnaawam pour wan ko ni rek dañoo bëgg euh, ba euh, président Macky Sall ak euh, Babacar Pascal mi nga xam ne moo koy jàppale ñu topp ci ginnaawam yal yàlla jàppale dimbali ñu ko. salaamaaleykum jaxaw ak caali maa ngi leen di seen tur bu di nekk ak sa sant di nuyu délégation bi nga xam ne moo fi jiitu Babacar Pascal ak mu àndal di nuyu Aliou Aïdara di nuyu yéen maa ngi nekk sa tur ak sa sant di imam bi toog fii. ah je ni man sama wax warul mën a bari fii parce que ñi ci ëpp ci yéen ay dara indi leen ci man ah Babacar nag kon niñ ko waxee day kenn ci man sës ma rek ma mu am mu am nu muy doxawee ci dëkk bi yaakaar naa ni à chaque fois damay dem ci cérémonie parfois damay santé wu un may dégg ñuy rappeler la population de la commune que ni Babacar Pascal dëkkul Thiès mais dafay ñëw dafa def dara Babacar Pascal Thiès la dëkk Thiès la dëkk te li muy def Thiès yaakaar naa ni jarul laax-laaxee maanaam acteur de développement bi ñuy wax ci moom jël na ko partagé ko bokkook man jox ma ko nee ma téyel ma volet boobu li ci des muy nekk ci arène bi pour war a liggéey moom moo ko matoo mu nekk ci ciy dox eh, ay dara fii mu toog ak yéen ñi mu nekkal yaakaar naa ni indi na fa ñeenti groupement de femmes ñu financé leen defal leen formation à travers Babacar Pascal Dione je pense que ni tey bu dajale waatee yeneen groupe indiwaat leen ne dafa bëgg ñu ñëw fekk si loolu ci acteur de développement bi ngeen bëgg yaakaar naa ni du doon lu jafe loolu incha allahu karim Babacar Pascal bu leen ci waxul sax jël na ko en charge parce que da bàyyi ay dara accompagner leen ngeen ñëw ci man am loo xamante ni. yaakaar naa ni moo ëpp solo loolu ñuy wax muy wérgu yaram jigéen ñi ak wérgu yaram mag ñi je pense que ni Aliou Aïdara mu ngi ciy liggéey loolu dañ ko doxtaanee ak Babacar ma ne ko neex na nga jàppale nit ñi yaakaar naa formation neex na financement neex na mais li neex mooy wér ku wérul soxlawul financement soxlawul formation moom moo ngi ni toog Aliou Aïdara ngi ni toog ci wetam ñu prévoir dix mille carnet mutuelle de santé ne dañ ko war a jagale waa Thiès ñu génne ko partagé ko ci cellules yi ñu am dans les différentes quartiers Aliou Aïdara ngi nii indil na ma ay carnet mais ba tey atteindre gu ñu objectif bi je pense que ni Aliou Aïdara ñii toog fii ñëpp seen i carnet war nañoo mën a dugg ci mutuelle de santé boobu kon damay sàkku bu li jeexee nga waraat la donte dañoo joxe woon un nombre dans les différentes cartes mais je pense que ne kon atteindre ñu ko fexeel du ma ne jaxaaw ak caale fexeel kees yëpp am mutuelle de sant ñun pare nañu ñun pare nañu au sein du réseau à travers Babacar Pascal Dione ñu ñëw jàppale leen pour nga xamante ni faj dina yomb ci nit ñi jël seeni garab dina yomb ci nit ñi formation dina yomb ci yéen financement dina yomb ci yéen Ali Aïdara xam na yoon boobu Babacar Pascal war na ko war naa ko dina leen ci jàppale wasalaam maa leen waaw may nuyu mbooloo mi ci di gërëm ñépp nag di sant ñëpp di tàmbalee gërëm lii ci imam di gërëm également chef de quartier bi Jacques Ahmed Gaye représente ko fii muy coordonnateur muy sama grand frère encore

commission des boursières de sécurité familiale Diakhao Thiali Ramagay dirigé ko également gérante mutuelle de santé may gërëm waa daayira rahmaanu rahim ñi nga xam ne chaque année ñooy ñëw fii di gamu sama gamu papa Suma ma demee Njaasaan ñoom ñoo mooy gunge ba dugal ma ci tànt bi tribune officielle ma toog ànd ak sëñ ma leen di gërëm bu baax Dia di gërëm wa jaxaw bu baax ba ku lim juum di gërëm wa tiali bu baax ba man dama di doomu jaxaw tiali lu sama bay tiali la soqe ko sama yaay jaxaw la dëkk sama première femme jaxaw la dëkk sama deuxième femme tiali la dëkk premier sang de nutrition communautaire bima ma diriger jaxaaw la ko diriger bima ma ba résiliation contrat yoyu am ma nekkoon de bi dama jéem pérenniser centre pour déplacer ko yobou ko fa bénéficiaires yi muy donc centre ba fa la ma banque de denrées alimentaires créé fa ay séances de vaccination créé fa ay groupement ba ñu garderie d'enfants communautaire di fa def ay séance de vaccination en collaboration ak waa poste de santé bi muy madame Dione créer fa également une troupe théâtrale tey muy troupe bi nga xam ne ni moom ngeen di seetaan di troupe euh, royukaay ñuy def jiixi jaaxa genn wàll gi nekk caali genn wàll gi nekk jaxaw donc kon développement moo jur loolu man développement rek laa xam ci laa mës a liggéey donc li ma amal solo mooy gor su ne bu toogee ci digg mbooloo bu ne dama ne rek yeew na ay buum soit mu wax ba yi mbooloo ma mbaa mu wax ba yeew boppam donc kon lépp lu doomu aadama di wax wala mu koy def war na ko seetaan li ñu naan def def nay leer ndax nettali ëllëg moom moo tax dama di doomu jaxaaw di doomu caali ñu nekk ci mouvement de développement muy matse ñu nekk également ay acteur culturel tey daam seen mii bu ko Pascal recevoir Macky Sall dina ko recevoir bu ko Pascal mii recevoir Macky Sall dina ko recevoir parce que def na loo xam ne nii tey lu ko Macky Sall war a recevoir ndax toog na fa mu toog mu koy liggéeyal donc liggéey rek a am solo gëm sa bopp dong moo am solo kon tey kii nga xam ne nii moom moo ñëw fii jaxaaw di Babacar Pascal Ndione mii balaa nay wax ci moom ci politiquement damay wax d'abord ci moom administrativement ndax ñu koo gis muy ànd ak doomu aadama am na lu leen boole kii politique boolewuñ politique boolewuñ dafa nekk sama kilifa au niveau des impôts et domaines de Thiès il est le quatrième inspecteur des impôts et domaines bu ma liggéeyandoo moom Babacar Pascal mii fekk ma impôts et premier jour bi muy def di waxtaan ak nit ñi di jël service ba muy wax dafa ne man jëm ji laa fi njëkk a xàmmee yéen ñi de am na ñu ma fi xamul waaye kii moom chaque jour mu dugg sama kër am naa ci moom cofeel te moom laa def sama xarit bi muy doog a ñëw impôt tamit loolu lan moo ko daal ñu ànd di liggéey nag liggéey bu rafet waaju am jom la waaju am ngor la waa ju gëm liggéeyam la nag waa ju am fulla ci li muy liggéey la nag boolewu ci nag wax boolewu ci ñàkk fayda billaahi wal kitaab loolu lu ma mën a seddale ci moom ndax dama liggéey moom cinq ans tey am na ku taxaw fii ne maalaw door bi ñu ko euh, primé fii mais ku ñu prime maalaw door c'est parce que sa liggéey dafa fees bépp inspecteur des impôts et domaines bu jaar fii fekk ma fi performance bi mu def ci côté fiscalité amul kenn ku ko ci def télé moomu tiim looloo waral prix boobu neexul nit ñi rek de parce que daa wengal gone carrément déedéet deful liggéey nit ñi primé ko mérite la ci moom mu dugg ci mouvement dollil Macky bi mu koy njëkk a taxawal tey si tey ñëpp ñi ànd ak moom du ma ne waaye bokk naa ci ñi mu njëkk a woo ne ma Alioune Aidara kaay yow sama frère nga sama xarit nga nga jàppale ma ci ma ne ko Babacar man parewu ma pour lii laa ko tontu bureau taxul Baba bàyyi ma taxul Babacar Pascal bàyyi ma benn yoon lépp lu may organiser mu jël jëmmam jiital fa ñëw jël alalam def ko ci man te ànduma ak moom ci liggéey politique kon donc gor la ba di sargal yu ma mujj di sargal sams dafa am lu reuy lu mu warona dem Dakar mu ne ma mon frère munuma dem Dakar te jaaruma fi jox la sama soutien nga gis ma mu jël enveloppe tek sama loxo mënoon na ko ci bañ fek am naay wala am naay ni me xamu dara tay la koy xam bu mu fi ñewé biir jaxaw xam ni may liggéey bés ñëw nañu ñu bokk biir jataay sams bu ma ko invité waat également ci ay manifestation ndax du ma toog trois mois yu ma organisé wul mu ñëw fekk fa ay autorité tourné na ma mon frère ne yow li ma jaaxal on a des amis en commun kaa ñu liggéey kon kii war naa mën a liggéey moom je pense waaye nag man yàlla dafa def awma parti loolu la ma yàlla bindee man mouvement laa musaa musuma dugg ci parti parti bu ñu leen ne jënd naa kàttam nee leen ko loolu amul musuma dugg ci benn parti sama parti nag Babacar Pascal Ndione mooy ñii jigéen ñii ñii di doomu jaxaaw di ay jigéen ñoo xam ne nii njël lañuy ñuy xëy balaa ñuy tëdd muy xaaja guddi sonn ñuy doomu jaxaw nekk ay acteur culturel nekk ay acteur de développement suñu baat ak suñu làmmiñ mën a yegg foo xam ne nit ñi seeni baat ak seen làmmiñ peut être mënu fa yegg mais duñu exploiter loolu pour suñu jigéenu gox bi loolu moo ma yëkkati looloo ma dugal ci wax mais mënoon na ma cee bañ a fekk tey nag lu ma ci góobe gar ko dinaa ci dégg lu ne mais man ak yéen lu ma ji góobee gar ko taxaw naa pour jàppale jigéenu jaxaaw ku ma fekk si ci jàppale ma ci jigéenu jaxaaw ma ànd ak yow ku ma fekk si ci jàppale ma ci jigéenu caali ma ànd ak yow ku ma fekk si ci jàppale ma ci sama gox ma ànd ak yow ku ma jàppalewul ci sama gox demal nga ba sama gox donc lii moo ma dugal ci tey ma fikku dugg ci en tant que acteur de développement ma tàllal loxo ana ku ma ciy jàppale mu ñëw téye sama loxo ne maa ciy jàpp ma tàllal sama loxo ne ana ku ciy jàpp ñépp laa ko jox ana ku ciy jàpp moom moo jiitu tàll jëw jàpp sama loxo ne ma maa ciy jàpp kon nag def naa ne su ngeen dégloo wax ji kii yàgg na ma woo pour ma ànd ak moom liggéey te yeen ñi ma nekkal fi xam ngeen sama fulla xam ngeen sama fayda xam ngeen ni duma dugg ci lu ma amalul njëriñ du ma dugg ci lu amalul gox bi njëriñ ba ñu dalee politique ba légui ba jaxaw dé politique ba légui ana lu jaxaw am ana lu jaxaw am ana lu tiali am ci politique ci côté responsabilité ci côté lu ñu défal kon nak dafa naa ño wara wax ño len wara waxal dañuy waxa ah, ñun ñëwuñu fi nak pour nek fi jappalé nit pour lakku ci ginnaw gis nga buma bëggon jappalé Macky Sall dong dong mu taxone ma jëm billahi wallahi taala duma jatt Pascal parce que nous sommes des acteurs culturels Macky Sall di ñu dam daam seen suma ko jëlé suba bolé ko sama yeen fukki morom ñu taxaw suñu bëggé gis Macky Sall gis ko waye dafa fekk ni jëm ji li ma ji ne ma dina ci japp lo gis ci aduna escalier la mat yor nag mouvement la yor mënumaa dugg biir dollil Macky te noonu la ma ko proposé ma xam ne nii ma saytu ko bu baax parce que nit di ko jàppee dof léeg-léeg mu wutal lay leen dama kaa déglu mu ne ma ginnaaw mouvement nga yor ginnaaw mouvement nga yor te man mouvement laa yor mu ne ma waaye organiser naa le CAMES le collectif des mouvements de soutien à Macky Sall kon kaay nga dugg ci biir mouvement boobu ah boo amee yobul sa mouvement buma amé yobul sama mouvement ay dara man lii la yéene ba paré ma charge la dougal la ci bir jox la poste de responsabilité kon li moy sama anda ak Babacar Pascal kon ma léral ko waa jaxaaw ànd bi yépp nak andu ngir sama gox gis ci bopam la wahmum nak légui wax nanga waxeet dafa xew waye na nga xamné ni sa yo waxé ñi ñu la tek sen camarade suba bu ma ci génnee la ma cay génnee dinañ ma ko tegalaat suba moom mii ma ko séqal ñu ànd àndu nawle bu nee goos bi war na ma dina dinañu teg la ma ko waxaloon ku ma jàppale ci ñii billaahi foo ma woo mu ku ma jàppale ci jaxaaw foo ma woo mu suñu tali bii diggante ravitaillement jëm fii bis yaa suñu suñu jigéen ñi Pascal ñoom ñëpp seen liggéey yàqu na rës rës yoonu base bii yoonu base bii nga xam ne ni kaaraange Sénégal muy armée bi muy gémi ñoom ñoo ngi foofu dama ne premier catastrophe bi fi njëkk am doomu jaxaaw deeti muy ñetti doomu deeti ak ñaari doomu la ñun ñu toog fii tey suba ñun ñëpp dañuy wujji ci fii lañu jëm ci ginnaaw suñu yoonu armée yi autorité gaañu na ci dëkk bi fii bañ koy suuli ay autorité ñoo ñëw ay ministre et les consorts ñoom ñëpp ñii seen gesner takk nañu ñii seen costume takk nañu ay poco poco yoonu armée yi mun ñu koo def mun ñu koo defar léegi nag ñun waru ñoo juk nag dun wax ci loolu xam nga lan mooy problème ñun xooluñu parti xam nga ku ñu xool ki taxaw dëkk régler suñuy problème mu jaxaaw ki taxaw régler problème mu caay kooku la ñuy xool ku fi nag am loo xam ne nii rek war nga koo munee ne yow doo gor nga xool ma man Alioune Aidara ci bët ne ma doo gor dama ne defal ma fii jaxaaw loo xam ne nii su di nga ma yow doo gor dañ ñoo defalul dara nag jaxaaw defaluñu dara caay kon nag Babacar am ñu yaakaar ci yow am nañu wax dëgg yàlla. ah mbekté ci ñew bi nga ñew ci ñun waaye jigen ñi ba ma ñëwee ci mom wax ak momit daf ma né delluwaatal watal té jigen nga laaj leen luñu bëgg ma wat ci base xam nga jigen ñi luñu ma delloo wax ku leen financer lu bëgg du liggéey ku leen financer ñu liggéey lañu bëgg ku leen defali promotion ku leen defali formation koku lañu soxla kon ku leen financer jappalé leen jarul nga naan leen jàppale ma nit ki soo ko jàppalee ku ëmb sa sa sànqal ëmb sa sutura nit ki soo ko fekkee ci domaine ba mu nekk nga jàppale ko Babacar bul tàllal sa loxo croise les bras ñoom ñoo lay jàppale kon donc bi ma dellu see ci moom wax ko ko loolu am na ci tontu te kooku duma ko développé defe naa di ngeen koy déglu mu jaral leen ngeen may ko 15 minutes ngeen déglu ko moom mu wax leen ca yooyu ma ko jox doléance laa ko jox Babacar je m'engage aujourd'hui ànd ak yow sama kàddu rëcc na ma waaye sama jom en tout cas soobu na ci géeju maag yow ñu ànd fay ci liggéey bu set wecc biir jaxaw caay voilà merci beaucoup maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant di am mbégte teew fii ci quartier jaxaw wuyu si sama rak sama xarit di ay dara mi nga xam ni sama rakk la comme ni ko waxee ñu xamante bien avant politique seq liggéey ci impôt mu doon koo xam ni dama am respect ak consideration ci moom te moom xam na ci dara ñu ànd liggéey liggéey bu mucc ay ma gis ci moom ay jikko ay qualité yoo xam ni ma yéene ci sama xol ànd ak moom ci politique bi may jéem fii ci Thiès yàgg nag di ci waxtaan ak moom saa yu ma waxee moom rek mu am lu ma tegal lu ma dul mën a teggi waaye boo bëggee dara daf lay jaral ma topp ci moom xam ni bis dina ñëw

maa ngi lay sant di la gërëm tey nag am naa jafe-jafe ci wax ji eh, ñu bëri ne nañu léeg-léeg li may wax dama koy xam waaye tey dina jafe parce que Aliou bi mu waxee ba pare wan na ay qualité orateur yoo xam ni franchement sama yaakaar ci moom gën naa yokk xam nga politique lamboo jikko yu rafet am na ci solo baax ci nit ñi am na ci solo waaye mën a wax li nit ñi dégg ba nangul la ko da cee bokk te Aliou bi muy wax ñépp ko dégg kon sama yaakaar ci moom yokku su ma demul fenn te yebal ko fa dina mel ni maa fa dem kon bis ni tey xamal ni dalal naa la ci kër gi kër gi nag këru Macky Sall wootewuma dara pour sama bopp man lu ma woote rek Macky Sall laa koy wooteel bëgg mu am ndam bëgg ndamam sax fii ci Thiès loolu moo ma tax a jëw ci émission yoon wi démb RFM wax naa ni mënoon naa ñëw Cees liggéey ba dem ni samay nawle te kenn du ma fi xam parce que administration moo ma fi indi ñu bari wax nañ ni dëkkuma fi dëgg la dëkkuma Cees dëkkuma Cees mooy maanaam juddoowuma fi waaye nag fii ñu toll nii dootuma nangu kenn ëpp ma cër Cees parce que lu fi waay di jéem ci lu baax mang koy jël ku fi am kër dëkk fa am naa fi kër dëkk naa ku fi am famille sama famille ngi fi dëkk ci dëkk bi nag weesuwul loolu am fi kër am fi njaboot te loolu am ko fi kon nangu naa ni Cees waala maa ngi gërëm bu baax délégation bi ma àndal jarul ma leen di lim lim nañ leen ngërëm li dama ko njëkk ci ñoom parce que nag tey bu ñu joxee cër jox ñu considération sur le plan politique ànd ku sax dàkk bi ma ànd ak góor ñi ak ñi ñu àndal ñoom moo ñu may loolu kon sant naa leen gërëm naa leen yow nag ay dara yaa sa mbooloo ngeen ñëw fekk si ñu ci kames pour yaatal ko loolu lu ma rafetlu la parce que lu ma yàgg di wut la ah, dégg naa fi nag ay kàddu dëkk dégg naa fi lu ñu mën a tudde ay doléance man duma ko considérer comme ay doléance dama koy jàpp rek comme une invite à ce que góor góorgóorlu kémtulaay sama kàttan ci soxla koñ bi ak waa koñ bi ci aspect boobu na man daaw ma faral di def ay promesse parce que dinaa leen defal nangam wóoru la ndax ëllëg danga ko fekke te dinaa def nangam ëllëg la def naa lii loolu tey la nit mën na ko wax bu ko mënee waaye dinaa def nangam man bëgguma di ci sone parce que ëllëg ëllëgu yàlla la mais nag mën naa fësal sama yéene jàppale leen nekk ak yéen kemtulaay sama kàttan lu ma yéene sama bopp ma yéene leen ko lu may yéene sama njaboot ma yéene leen ko boobu jikko day wóor na ma ne mi ngi ci man te àndul ak ay naxe àndul ak ay tappale jigéen ñi daanaka ñoo constitué mbooloo bi fi teew ñëw fi ëpp Sénégal moo bindoo noonu politik bi ginnaaw yàlla bu ci ndam amee rek jigéen ñi la kon képp koo xam ni am nga yéene jàppale ñiy def politique tàmbale ko ci jigéen te jàppale jigéen mooy jàppale borom kër. parce que ñun góor ñi lu ñu am suñu poche lañ koy def dinañ ci comp joxe dépense waaye dinañ ci faj aajo yoo xam ne suñu bopp la mais jigéen loo ko jox rek xelam ci kër gi lay njëkk a dem yéen jigéen ñi yéen ak samay soxna yéen a yem ñun liñ leen di jox doyul mais da ngeen di fajaru ñii dem ci marché yi ñii dem ci luuma yi ngeen forat lu ngeen indi dolli ko ci leen borom keur di jox yor keur gi kon jappale leen moy jappale borom keur jappale jigen moy jappale goor moy jappale xale motax man sama politique damay def ay effort pour jema a jigen ni nit ki nak di may jël di jangal ni ñuy nappé ko gën bu la gisé am jël bu la gisul am jël caajaay be ma jógee nii laa tàmbalee ak ñoom dama doon liggéey ñaari weer ñett dajale lu mat cent mille wala deux cent mille dem fekk ay jigéen jox leen cent mille ne leen tàmbali leen liggéey ndaxte nag jàppale mën na fekk sa loxo dëgër booy wut financement nañ la fekk ci liggéey bu ko financement bi ñëwee da koy fulali mais du ko tàmbali te yéen yéen a ngi ci man nag jël naa engagement nekk ci seen wet ci anam yii laa ko bëgg a defee nag maa ngi tontu ay dara sas bi ma sas mu jëm ci jigéen li ñu war a njëkk def ci yéen mooy fexe ba formaliser leen maanaam fexe ba document yi ngeen war a mën a am pour bénéficier ci financement yi ngeen di dégg ngeen am ko parce que yomb na ay jigéen dajaloo ne ñun ñoo am financement. peut-être parce que dañoo remplirul les conditions de forme pour mën a bénéficier de financement te conditions yooyu bokk na ci nga am li ñuy wax un GIE Aliou defe naa waxtaan nañ ci boole naa la ak madame Sangaré mi nga xam ni jigéen ju jàmbaare la ci mouvement Dolil Macky nekk secrétaire général chambre de commerce loolu nekk liggéeyam donc jéem a la ànd ak moom ak jigéen ñi ngeen formaliser wu ba am seen GIE. frais yi nga xamni ay frais enregistrement la yu war ko fay ci impôt man dina lamb sama boss fay ko ngeen am kay yoon su ngeen amé kay dina man ci sama bop li ma sama bop dina am luma ci yëkëti jox leen ngeen ubi seen compte bancaire def ko ci tambalé liggéey bu ko defee dinañu dem séti ño xamni dinañ leen mën a defal formation dinañu saytu également seen dossier pour que financement yi nga xam ne état moo ko indi ngeen man cee am loolu dinañ son sulu daal dox ko te xam ngeen ni président Macky Sall dafa jël année 2018 def ko une année sociale budget 2018 bi c'est un budget social maanaam c'est un budget qui est destiné aux populations mais particulièrement aux femmes et aux jeunes Nous am un fonds de 30 milliards boo budget de da destiné à ce qu'on a appelé le financement rapide Madame, critère de financement la yoo xam ni 10 comme ni emprunt 10 10 au niveau des banques dañ koy woyofal pour que les ak jeunes yi man accès à la mën nag kuy ànd ak man da ngay fexe làmboo jikko yoo xam ni ku la xool naw la te ku la xool naw la bokk na ci nga dugg ci mbir bañ cee duggantu mais nga soogu bu ngeen tàmbalee liggéey na leen jaral lu nekk seen fond de caisse bu leen ko yàq continuer di ko fulal parce que nag ki taxaw ci tëll bi solu ba jekk moo neex a yóbbaale mais ku tëdd ci lalam di la wax kaay yóbbaale ma kooku dalay tardel kon bëgg na bu ndimbal ñëwé na leen fekk ci talib yi ngeen solo ba jekk taxaw bu ko défé boto bu baax gaari ngeen mëna a dugg yegg fa ngeen jëm auto bobu nak ñaan na yalla mu doon bi may tal and ak ay dara ñu ñëw fekk leen ci talib yi jël leen ñu dem fekki Macky Sall mu jappalé leen man lepp lu may jëm ci yeen dama leen di organiser rek mais financement bi ci Macky Sall la ko parce que nag li leen mën a jëriñ foofu lay jóge ñun man nañ leen a encadrer mën la leen a jàppale mën na leen a préfinancer du bari nag parce que waxtaan yi waxante dëgg la man du ma directeur général du ma ministre yoruma budget sama salaire ak samay avantage yu haut fonctionnaire laa yor di ci sàkkanal di ci dimbalee doomu adama yi te bëgg naa ni mu koy defee jaxaaw ma man koo defee noonu feneen ak feneen ak feneen kon nag du ma fi liggéey loo xam ni duma ko mën a def ëllëg bu ngeen dajeek man ngeen xeeb waaye nag defe naa ki am sareet dugal la ci su amee oto doo def ci tali su ma yoragul daray nguur di leen jàppale ci li ma moomal sama bopp su ma nguur dencee loo xam ni mbooloo mee ko moom di ci gis seen bopp loolu moo ci am solo donc dara Alioune jël naa engagement nekk ci sa jigéen ñi jàppale leen kéem tulaay li ma man bëgg naa itam comme ni nga ko waxee ñu ànd àndu nawle àndu nawle mooy kenn ku nekk wekk sa morom jox ko cër sàmm sa kàddu ci moom mën nag li ma soxla ci yéen wax naa leen ni soxla bu ma ko pour sama bopp pour Macky Sall la ñaar rek moma amal solo ci and bi ñu and suma wote bu len fa kenn jiitu parce que nak homme politique mbolom lañ koy respecter ku wote ñaari nit ñett tew ku forom da nan ki de ak waxam ju bari yi kenn top amul mbooloo koku lamuy wut ci politique du ko am mais ku wote mbooloo mi kenn du fa xej te tok ba wax jeex koku man nañu am yaakaar ci parce que nag boo woowee nit ñi ñu bàyyi seen kër yi bàyyi seen reer yi bàyyi seen borom kër yi ñëw wuy si la toog di la déglu ñooñu boo leen woowee ne kaay leen woteel diw dina leen ko jaral kon mën nañoo am yaakaar ci politicien bu am mbooloo moo tax mbooloo mu mel noonu moom laay wut kon bu ñu wootee na ngeen ñëw bu ñu santaanee wote surtout wote yi di ñëw 24 février 2019 xam ngeen ni. élection présidentielle day am Sénégal man nag fi ma far làqu ma ko nëbbu ma ko Macky Sall laay jàppale ragal peete day xañe wërsëg ma bëgg nag képp ku ànd ak man ni ma farloo ci jàppale président Macky Sall nga farloo noonu élection yu février ñun ñépp nañu ànd voteel ko mu jàll au premier te loolu yaakaar naa ci jaxal ma bëgg nag derrière mon jeune frère góor góorlu sagal ñu ba bu bis ba Macky mën a dégg wiiw fii ci Thiès duma ma soriwaat ci wax ji te nuyuwuma kenn koo xam ni sama jigéen la sama rakk la sama jarbaat la te it defal ma lu mel nii fii ci jaxaw parce que nag àdduna aussi bokk na ci nit defal lu lu baax nga reconnaître ko muy arab ñam moma jëk njëkk indi fii di jaxaw ma yëkëti sama alal def ci jumaa ji fek doléance suñu ma waxon yëpp ma def ko tout récemment jappelé na ko mu def ci ben set setal xamna peut être dafa voyager xeyna motax ñewul mais dama bëgg ay dara nga joxante ak mom loxo étant donné que yéne bok bokk fi ngeen lang maintenant di liggéey ngeen bolo doon benn bokku quartier bi gëna yaatal doole kames fi ci quartier jaxaw

deug la après Macky Sall am yeneen élection yo xam dañu wara fal ay maire fofu nag dina ci taxaw tout parce que am doléance yu ma fi dégg yo xam ni ay lay yooyu suma len waxé ni ne ko def war ngeen wax ni ki ku man tapalé da tali bi ngeen wax suma len né ne ko goudronné waa lu ma koy goudronné aw ma ko nag yàlla té du sama cër du sama liggéey man na nak wax ba kilifa jot ci buñ ci joté boole ko ci programme mais loolu mënuma ci jël engagement éclairage bi ngeen di wax loolu liggéeyu mairie yi la am na maire bu leen yor liggéeyam bu leen doyee bu déwénee bu nekkee candidat ngeen falaat ko mais liggéeyam bu leen doyul ngeen seet keneen looloo aussi wax la joo xam ne ñëwagul waaye dina ñëw parce que nag toog fii lepp luñ ma wax rek ci doléance ma ne dina dina dinaa te mu doon lo xamni du sama cër mënuma ko lolu ci naa fekk la bok donc aliou côté bobu vraiment lolu la ci mëna wax en tout cas dal man sama yéene bi nga xamni ni wër na dajale ni na jaxaw tay te lepp lu man inshallah allah ko jël ba du ngeen ma jël wax ji mi ngi bëgg a nañ ko yemale fi te li ñu wax à partir de demain ñu jéem a teg ay jalon pour man koo jëmal jigéen ñi gis seen bopp ci li ñuy def man tamit ma gis sama bopp ci li ngeen di def bu ko defee ànd bi kenn ban ko rëccu maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax wasalaam